mbokki internet Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ba tey nag bokk na ci la ci gën a fës ginnaaw manifestation yi nga xamante ne boobu ba léegi nag ñi ngi ci wax ci biir réew mi fële nag ca jam ñaajo daal di jël wàllam moo it waaye nam ko jëlee nag daal di nekk mbir mu doy waar moo xamante ne bi nag moom moo fa xew diggante ñoom ñi nga xamante ne bi ay takk der lan ñii nag bi ñu ñëwee foofee ci jam ñaajo ndaw ya di yëngu-yëngal lan daal di nag dem fas yéene janloo ak ñoom xamante ne mooy xibaar bi ñu jox mooy que ne ñoom gendarme yii daal di dañoo tasaaroo kenn ci ñoom nag da doon dóor benn bal lan mu daal di jot dal ci kenn ci ñoom mu daal di jot ñàkk nag li nga xamante ne mooy bakkanam mu ngi xew nag ci 19 heures ba muy jot foofee ca jam ñaajo euh, moom gendarme boobu nag nga xamante ne bii dañ ko dóor euh, bal Eh, daal di nay ñàkk li nga xamante ne bii nag mooy bakkanam loole ma ngi amee foofee nag ca jam ñaajo léegi ci 19h lan ñu ko xamal xibaar boobee di mbir mu doy waar moo xamante ne bii mi ngi am ci diggante ñaar ci ay takk der lan nag doon janloo ak lenn ca ndaw ña nga xamante ne ñoo doon manifester foofee niki noonu nag laataa ñuy pare la ca kenn ci ñoom daal di dóor bal mu daal di dal keneen ci ñoom ñoo ñee noonee des na leen toppal nag xibaat bi la ca gën a fes foofee nag ca jam ñaajo indi leen ko fii ci l'ensemble de toute l'actualité eh, fii ci yaatal vision